falaam ba tàkk na décoration ba rafet na jaajëfati Pape du Fall ñu ngi lay jaajëfal di jaajëfal Assane Ndiaye petit production ñi nga xamante ni ñoo jàppale Pape du Fall ci liggéey bi. mi am ci lamb wallaay ndeysaan la joor. ndeysaan liñ ñu ko la moog fi njëkk a indi. 2010 la woon. ndeysaan taaral stade bi. loolu dafa rafet. oh ba ba léegi mu ngi néew. boobu ba ndey ndeysaan moo tax li li Nicolas yàlla na jàmmam yàgg. lu rafet rek rafet. lu rafet la Sénégal xam. dañ yéene tey jàmm Ndiaga Sarr. dëkku teranga la la Diop. Sénégal lañ nekk na yéene tey jàmm. ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. ndeysaan ko ci laal laal moromam. ndam li génnul Sénégal. ndeysaan dañuy waxante lu rafet. diggante Ndakaaru la. ndeysaan génn ko. ak Grand Yoff. boo xoolee sax Grand Yoff ak Ndakaaru benn Ndakaaru bi la ku ci nekk say mbokk ëmb nañ la. bu njëkk kii da daan bëree ak mbëru banlieue bi. loolu dafa leer. mais bi yëpp ndakaaru la. lépp ndakaaru la. ndam li du génn. du génn ndakaaru. ndeysaan na supporter yi def fair ñibbi ci jàmm. oho te xam ne làmb la. ndeysaan arbitre baa ngi wax ak ñoom. la joom ndeysaan. bokki làmb diaspora arbitre baa ngi waaj a siffler diggante Ada Fass ak Zarko. ndeysaan. le 15 janvier 2023 mu tombons dimanche National, ci arène journée Pape Abdou Fall Paf production 21 h 6 minutes mbokk arbitre baa ngi waaj a sifflé Ada Fass yëkkati ki public bi Zarko yëkkati na public Ada Fass moo na Ada Fass pied droite Zarko pied gauche ñoom ñaar ñi ngi leewtoo Zarko nee na tek Ada Fass nee na tek lamba demee noonu Ada Fass Zarko ndeysaan fii ci arène nationale bu ci nekk say mbokk ak na teg xoolal ma Zarko aj na garde ba Ada Fass ak Zarko lamb folo waaye ku daanu rus ñëpp a ngi ñammi ñammi ndeysaan combat bi daa amoon enjeu combat bi daa amoon tension ci jàkkaarloo ci communication bi Zarko mépp na Zarko du xaar wax naa ko ci samay interview Zarko benn pas du ko arrière tey Ada Fass mais bu dee may Ada Fass damay xëcc Zarko di bëlee latéral ndax Zarko néewul doole ndeysaan Ada Fass tey ba làmb boole koog Zarko Zarko jóge ci Baye Mandione ca Caaroy Ada Fass ci Kalu Fay numéro 2 ca Caaroy làmb boole leen tey ñoom ñaar fii ci Arène Nationale gis nga Zarko day ñëw Zarko buy door buy song benn la Ada Fass na sóoraale tànkam yi Ada Fass na sóoraale tànk bi mu tek pied bi dafa jege Zarko pied droit am moom Ada Fass Zarko wàcc na Ada Fass na ñi ngi lewtoo benn benn ñoom ñaar gis nga Zarko mi ngi direeku li muy bëreegum jaadu na mais Ada Fass arrièreul benn pas mi ngi ne tekk di ko déglu Zarko dagg na lewtoo ba avancé ci Ada Fass Ada Fass saa yu war a arrière ndax Zarko ni muy ñëwee muy door rek benn la ndeysaan di nuyu waa diaspora bi di nuyu waa waa Kër Massar fa laa dëkk man Ndege waa Sénégal di nuyu njabootu làmb làmb noonu tey la Samba yaa na ngaan jaay doolay bëre asuma réeroon fii lay feeñee ci ndeysaan ñi ngay jàpp lewoto jàppante amagul xeex amagul Samba Yane Ngane Ndiaye doo lay bëre Ada Fass Zarko Ada Fass siggi Ada ngembam li de Ada door Zarko déplacé wu Ada Fass Zarko mën na songu donte mot kan nga mot da ngay bàyyi ba Ada Fass Zarko Ada Fass Zarko Zarko daa bëgg a ñëw gis nga Zarko sànni na gis nga Ada Fass retraité taxawaat Ada ko naan ñëwal de Zarko il faut nga xool ni ngay songee boo jiitalee lek mun nga ci am lu la bett arbitre baa ngi ñoom Ada Fass Zarko ñi ngi lewatoo sama mag suma xarit def laay xam naa ni mi ngi koy seetaan si pay-per-view bi ndeysaan borom làmb moom Def Laay Ada Fass sànni na ndeysaan na Zarko def retrait gis nga Ada sooraaleel Zarko day songu Zarko li muy def gëmu ko Ada Zarko balaa xeex il faut mu jàpp loolu moo koy arrangé tey ci combat bi arbitre arrêté na combat bi ne leen bëre leen ñi ngi bëre arbitre pourtant ñoom ñi ngi bëre avertissement pour lan arbitre avertissement pour lan ah arbitre dafa bëgg ñu bëre bis bu mag la kenn mënu koo yàq kenn mënul asaaloo sa bis arbitre sifle waat na fii ci arène nationale ndeysaan Zarko Ada Fass Zarko Ada Fass ndeysaan Ada Fass Zarko Zarko def na demi flexion bërëm la aj loxo góos ba la ma Zarko dégg na Zarko lu muy bëre baax na Ada dafa bëgg a song wala Ada Fass dafa bëgg a Zarko wala lan la ñu ngi damantay baaraam eh Zarko door na Zarko kor na ko Zarko wuy sama Ada Fass Ada Fass nga koy na Zarko ma ngay jàpp sa ba Ada nga koy jéem sol di ko menee fere jàppante Ada Fass Zarko eh Ada Fass dëpp na ko solde ñoom ñaar ba tey Ada ngi dóor Zarko ngi koy dóor Ada jàpp na ko Zarko ngi Zarko ngi dóor Ada ki ngay bëreel bëre kat la Ada fi mu jàpp baax na sëq na ci gañoo daa di daa di ràcc Zarko jàppagul daa jekkandi moom Zarko Ada gën a jekk waaye Zarko jàpp na de Zarko ngi door pour Ada bàyyi combat bi eh Zarko Ada mun na laa tegal sees Ada mun na laa mboot mun na sànni mun na laa xar loolu lépp Ada Fass mun na koo def ci action bi waaye Zarko mun na ko door épercule Ada sigi ndeysaan Zarko ngi door épercule ngir Ada Fass mën a sigi combat bi mënul yomb ñoom ñaar waxoon nan ko rempli nañ seen Ada Fass eh Ada koy añ Ada xëcc na ko bëgg ko forcer Zarko bañ na Ada attention attention Ada Fass attention Ada Fass looy def na wóor Zarko champion la seet bii combat ñëpp a ngi ne tekk Ada Fass Ada benn loxo ba dañ na de Zarko ngi door Ada Fass téere mi da ko xaw a baale ci kanam gi Ada Fass ak Zarko Ada sigi na ku ci nekk sëq nga si gaño bal sa morom Ada sigi taxaw na jonn est que caxabal amu fi yoon déq amu fi yoon Ada sigi bi est-ce baax na si yow est-ce que bi baax na si Ada sigi bi baaxul si moom ah baaxul si moom. ah daa def sigi bi ànduma si la Diop. waaye na xam na lum nar ma ngay dajale. ma nga ko ah, bëgg a dajale Sarko. dëggaan na mais Sarko dafa liggéey tànk yi dajale ko di yomb. ah daa ngay ut ngeem mais Sarko ba ngay jàppagul. Sarko da ko ndengeñ teg ko épaule ba. Oh, oh, ma ngay doon. wala Sarko fi muy dóoree ay waay Sarko waay. la ilaha illallah. Sarko façon xeex bi muy xeex ban la sinuwaa la wala lan la. da ko bëgg a dóor. waaw ya bërëm mais Ada Fass mu ngi seet sa bi Ada ngi jek jekal de oh Zarko bagna da ko beug tegal sees caxabal la wala tak la Ada Fass Zarko quel combat quel combat yaakaaroon ni du yomb nax ngeen sen bop Ada Fass Zarko Ada wet lay bëre Zarko sànni na ko Ada bañ na Ada cëppeelu na gis nga Zarko patience la amul ci bëre te Ada mi na ne teg Ada am na avantage mais Zarko da koo bëgg a tuuse gis nga Ada loolu lay bañ moo tax mu génne bopp bi aj ko ca kaw ndax euh, bu sëggee ci suuf bopp bi Zarko mun na ko Zarko dóor na ko dóor na ko tànk daan na Ada Fass laa ilaaha illallaah Zarko ak Ada Fass ku daan Zarko ak Ada Fass kan moo daan sóoraale la sóoraale la Zarko ak Ada Fass ku daan